wala pour jiw si quelqu'un dit lii ngeen di def am naa lu ma ci war a joxe mhm. on n'a jamais dit non non non duñ jël sa bos il le fait pas pour nous dire que demain vous allez me donner ça sauf que yéen a leen sollicité defal naa rek sauf que yéen a leen sollicité ça c'est que nous avons défendu ñun nous avons dit que képp kuy def da def ngir Sénégal quelqu'un qui mais pour le Sénégal mais on le prend y a pas chose mais dafa am loo xam dafa am Sénégal ah dafa am Sénégal yàgg na Sénégal euh, da ngay gis ñoo xamante ni dañuy ànd ci état dem ba gis ni état bi mi ngi suux ñu ne ñu mukk duñu suux ak gaal googu ci suux. <laughs> <laughs> dañuy dañuy wàcc seen. gaal googu waaw ak gaal gi mooy ñëw euh, contribuer ànd ak ñun ci ci nangam. déedéet mais Sénégal attention gars yi gars yi gars yi dañuy gars yi dañuy investir ah. yi dañuy. y a des gens qu'on a man y a des gens qu'on a intégré fële ca ca ca suuf sa. waaw. mais am na ñu bare. am na sax ñu ci bokk ci ñun. waaw ñu bokk ci jomaay président bi. waaw ah, d'accord lay wax c'est-à-dire au fond. non non non non attends ah. liggéey non attends attends attends attends liggéey bi daf ci am ñoo xamante ne ils sont flagrants. ñoo xamante ne Sénégal yëpp dañu gis ni vraiment comprendre que il faut c'est il symboliser le système quand même tu vois mm. <laughs> ñooñu. man y a des gens. jawriñ uh-huh. je ne les connaissais même pas xaw ma hmm. leen cest am na ñu bari fii hmm. fi ma di que kii nangam kii nangam du ma ko xam nit ñi ñoo may présenté diw diw ni ma man maay nangam mais yow le am na lu nga wax moom c'est dangereux quand mu muy que ni le fait que li nga wax nii da ngeen di def collecte pour fonds Diomaye président bi tegu leen système bu segg ñi ngeen war a jël hmm. seen wërsëg ak ñi ngeen warul jël seen wërsëg loolu rek loolu c'est dangereux ah quand même <laughs> non non non parce xam lan moo tax non non parce xam nga lan moo tax parce que euh, hmm, mën ngeen jël ñoo xamante ni son ah, sont des corrompus te nuy corrompu ñu dugal seen xaalis ci kii bi. bien sûr comprendre nga. <laughs> <laughs> mais suba waaye te tout souvent ñoom seen seen projet mooy dañuy dañuy dañuy semer bu subaa dañuy jéem a fexe nu ñu récolter. ñun nag ñun nag. Ah? à la différence de régime qui uh-huh. amul kenn ku semer. Hmm. bu doon semer la rek. ku joxe xaalisam semewul wul ndànk rek loo maa ngi leen déglu bu dee <laughs> semer la rek. waaw ah kon maa gën a semer non récolté wu ko mais di nga récolté. non non non parce que yaa ngi yaa ngi lancé wàllu message bi yow tamit. non je ne cherche pas. <laughs> ah si quand même comme comme comme comme vous le dites. Uh-huh. il faut que ma leeral. ah waaw bisimilah. je te dis que en âme et en conscience je ne cherche pas à récolter. parce hmm. que je récolte ce que j'ai récolté. Hmm. je vais te le dire tout de suite. oui Ousmane Sonko est premier ministre. Hmm. c'est moi qui l'ai récolté. Biram Souley. il est ministre des des pétroles. Hmm. man maa ko récolté c' est que je raisonne. c' est ak man ni may raisonner. non ça c' est victoire du peuple quoi ça vraiment c' est victoire du peuple quoi. ça vraiment c' est victoire du peuple non attends c' euh, le peuple qui a donné corps a corps et âme non attends tu vois xam nga. oui ma change de ma Birame non man personnellement. man non xaaral ma wax la benn affaire yow man personnellement. Ah. musuma rencontre ni ni Ousmane Sonko ni Diomaye tu vois musuma rencontré benn leader politique Pastef mais je défendais l'état de droit je défendais l'état de droit et ce que je faisais c'est pour le Sénégal wow. tu vois man personnellement rek après après non attends après les élections après le victoire ñu ci bëtt dañ may interpeller di laaj ndax ndax ma ne leen mais man ah non attends non attends attends attends attends ma ne leen mais man ah waaw Birame Fodé quand même. <laughs> Sénégal ah nu mu tuddati. di nga teg sa bopp nag. non xaaral rek moo wax non non man je suis artisan. man je suis artisan. je suis directeur ok man je suis artisan je ne suis pas un administrateur. moi je suis artisan. et man ce que je vois c'est que actuellement ils sont sur une phase de changer de renouveler l'administration. Mm-hmm. tu vois. mais souba subaa tey jii bu fekkee ni suba. on a un club ok ok tu m'avais invité une fois malheureusement oui. que c'était un peu tâté aw ma woon temps pour ñëw. voilà je t'avais invité même à intégrer le. le club non je voilà. suis non mais ba que ba boobu dafa tâté woon ba ngeen ma koy wax fekk boobu ma am mu amoon beneen programme mënuma ko woon bàyyi quoi. Mhm. mais moi je je suis artisan et je défends les valeurs de euh, l'artisan l'artisanat et la culture. donc pour man su ma pour ah, comme comme Sénégal lay liggéeyal et puis je crois à l'industrie de l'artisanat à l'industrie de la culture je travaille dans ce camp là boo ma woowee di ma jox beneen poste boo xamante ni dëppawul ak samay compétence mais su boobaa du ma ko nangu parce que c'est pas mon métier tu vois donc dans ce cas là moo tax ma ne la instant suñu toni on comme maa ngi la koy wax sànq avant ñuy dugg mm. on a on s'est battu pour fal pour changer régime bi tu vois euh, on a donné corps et tu vois pour changer régime bi yàlla dimbali nañu ba ñu changer régime bi Diomaye ñëw ou Sonko ñëw c'est la même chose parce que ñoom ñaar ñoo porté woon projet bi mm. tu vois ah. léegi ce qui reste mooy que ni comment faire pour que projet bi réussir ti va mooy ànd ànd slogan boobu laa njëkk kii muy ànd gunge Diomaye mm. ànd ànd ngay Diomaye tu vois mais euh, nu mu tuddati ça ne veut pas dire que ni seen mode de fonctionnement parce que Sénégal dañu weesu jiite ñu mm-hmm. te ñu nekk ci phase nañu ànd dem liggéeyandoo ñu lay xool di la contrôler nga wax ñu fan nga ñuy jëmee ak fan nga ñuy jaarale mm, c'est ce que j'ai dit tout de suite est-ce que est-ce que est-ce que yaa ngi dégg waa ji moo tax sànq j'étais un peu interpellé si euh, ci côté euh, déplacement wu euh, Sonko wala Diomaye au nom de Pastef ou au nom de la République du Sénégal tu vois et puis tamit comme ni nga ko waxee sénégalais dafa am nu muy xalaatee loolu yow peut-être que yow mën nga ci seppi sa bopp mais la majeure partie sénégalais ni muy xalaatee mooy mag du fecc ci. yàlla naa dee yàlla naa dee. lekkitu kese naxul bëy. est dama dama lay wax benn dama la ci euh, waaye et loo. fekk xam nga yooyu yëpp c'est des c'est des c'est wolof. mais c'est réalité la boo xamante ni dafa nekk Sénégal te te te te te te tu ne peux pas que ni ñi ñëw dugg ci euh, mouvement Bassirou Diomaye président yëpp. non non ils pas jurer. c'est bien ils ne sont pas ah, c'est des c'est pas des personnes euh, que, que, euh, blancs comme neige quand même. voilà c'est pas des personnes blancs comme neige. te am na ci ñu euh, nu mu tuddati te nu mu tuddati est-ce que ñooy partager les mêmes visions et les mêmes états d'âme que Ousmane Sonko wala Diomaye. Hmm. wala wala wala Diomaye on peut pas jurer. on peut donc tu moo tax bon en quelque sorte. pour man man boo kii wu Babacar Ngom bi moom par euh, exemple am na ay kilifa yu nga xam ni hmm? euh, boo demee seeti leen hmm? dañ naan la ñooñu ci régime bi lañu bokkoon uh-huh. ñooñu ils ont été ceci ceci hmm? est-ce que tere na man par exemple ma dem seeti ñooñu mais seeti naa leen pour ñu ñëw bokk ci ñun te ñëw nañu bokk ci ñun maintenant bu ñu demee ba jël réew mi su fekkee ni yow mii yaa ngi traîner ay casserole mais yow sax waroon nangu di ñëw di jël ci ñun ay post loolu laa ko jàppee. mais wala boo jëlee post boo traîné ay casserole. Mhm. gars yi dañ fi nekk pour génne loolu. mais mhm. buñ ko génnee. Mhm. mën nga démissionner. bu dee man la je démissionne. on dit que Birame Khoudia wax dëgg yàlla. Euh, ñu ngi traîner ay casserole mun nañ ko wax mais man dama koy werante c'est-à-dire quand on dit diw détourné na diw ka man dama koy werante je ne suis jamais sûr à 100 pour cent y a y a y a yow lu tax diw xam nga ni mën leen bàyyi leen di wax diw xam nga ni euh, fa jibookaa maa ngi fàttali bi ñuy yóbbu nag kii am na 14 milliards kii am na nangam dara du ca dëgg y a des gens qui étaient avec euh, Abdoulaye Wade c'est des milliardaires c'est des milliardaires ñu mujj leen di génn seen kër Sénégalais dafa tàmm di wax wax lu mu wóorul. comme kii ci jamonoy Abdoulaye Wade. comme mais si am na si am na man am na ah bon. man ah am na. te pourtant ñooñu dañuy. ñoo xam ne doon nañ leen sax ci track bi. dafay am na ci créé créé tuddoon ci créé yi hmm. bokkoon nañ ci ñu ñu joxoñoon ne dañu def. les vingt cinq listes la. waaw euh, vingt cinq euh, personnes la am na ci en tout cas ñoo xam ne topp commencé woon nañ leen di leen. topp di wax di wax di wax. et mais à la mujjul fenn parce que yoruñu dara quoi détouré dara. Ah, ah, apparemment parce que am na ci ñu sax location. oui am na ñu am ah na ñu nga xam ne dañu mujj seen oto di paan ci am ay di yëg bon en tout cas fii la président bi wax moo ko mayoon huit milliards Abdoulaye Wade moo ko mayoon huit milliards ki doon ki moom da nga ma ne Abdoulaye Wade génne ne da ngay ma yuma la ko. effectivement l'apparence est parfois trompeuse. am na ku ma sax mere wéy nga kii diw ma ne ko bu ko waxati. Hmm. mu ni wéy non yow yaa gën a xam ma ne ko je preuve su ma demee ba am ci hmm. preuve nag je d'accord. parce que xam nga lu tax bu njëkk loolu daf ma naxoon. mu doon nekk ay jiboka ay diw diw am na ay milliards ma tëb di ko wax te boobu xale la léegi ma dem ba gis ni ñooñu c'est pas. dëgg la ma ne mais c'est fini moi je vais jamais plus dire que diw dafa sàcc tànk teguñu ba wan ma ay preuve.